léegi ay nit jóg di attaqué régime président Abdoulaye Wade te ci biir salle bi bari ci ñoo xam ne ay ministre Abdoulaye Wade la ñoo toog am ñoo xam ne ay député Abdoulaye Wade la ñoo toog man tey ndongo daara bi nga xam ne ba fi Abdoulaye Wade nekk président ma maa ngoon ca daara di jàngale ak samay ndongo tey man damaa koy wax biir wala defal na tey boobu risque dama jàpp moom mooy ay ngor ndax fii tey fi waroon a taxaw tey mooy ñi àndoon ak Abdoulaye Wade réussi moom ndax boo jëlee président Macky Sall ñoo di wax moo ci def tey daal mais bu leen fàtte ni douze ans la douze ans yi neuf ans moo président Abdoulaye Wade moo ko am kon régime boobu lu ñu ca def rek loxo ma ngi ci boo jëlee tey président Moussa Bagnès mais premier ministre Abdoulaye Wade la on est dirigé boo jëlee tey président Cheikh Tidiane Gaye mi ngi leen di président neuf ans yaa ànd ak Abdoulaye Wade

bëggoon nga ma xam xaalis boobu fan ngeen ko dugal ci biir loolu itam bëggoon nga ma xam chaque jour Sénégal ñaata lay fay ci bor nga xamante ne Sénégal ñu ngi koy fay su fekkee 1 milliard 500 la ma xam su fekkee 2 milliards la ma xam mais bëgg na ma xam chaque jour Sénégal ñaata lay fay monsieur le ministre fi may ñëwaat mooy wax ngeen ne signé ngeen le 3 novembre 2021 36 convention de financement. yoo xamante ne yéen ngi ci jëlee lu toll ci lu toll ci maanaam mille cent trente deux milliards bëggoon na ko xam xaalis boobu bu dugg la wala wax kese la ak xaalis bu duggee fan la bëggoon na ma xam itam soixante dix milliards yi nga ne Allemagne daf ñu ko jàppale woon na ma xam xaalis boobu ndax ñëw la ak ñi ñu ko dugal bëggoon na ma xam aussi tamit convention bi nga xamante ne yéen a ngi koy signé ak Chine convention yi ci lan ak la jëm ak loolu su a nu ñu koy doxale ndax ñëpp xam nañu ne Chine signé moom convention baax na waaye convention ndax dañ koy xool bu baax ndax koo xamante ne bu lay defal xaalis buy ñëw mooy indi nga maanaam entreprise bi koy a liggéey ñu bari daanaka moom mooy wàññeekuwaat defaree mooy indi li nga xam ne moom lay defaree lu ci bari bëgg na ma tamit li nga xamante ne Sénégal tey foofu la toll ci ay bopp cycle bi dëgg-dëgg tey moom laa bëgg a xam sama xol yaa loolu bëgg naa ko xam gis naa yi tamit ne yéen ci seen wax ngeen ne bi nga xamante ne jël ngeen maanaam ay fonds ci le deux cent deux mille vingt et 70 pour cent yi yéen ngi ko jëndeewaat ay eurobond yoo xamante ni mi ngi 70 pour cent yéen ngi ko jël jëndeewaat ay eurobond yoo xam ne mi ngi war a ñàkk 2024 2024 loolu itam bëggoon na ma xam après 2024 eurobond yi jëndeewaat da ngeen ko jëndaat wala dal ndax Sénégal moom yóbbu ngeen ko tey ci ay bor ba mu àgg 2024 moom bu ñëwee jël réew mi tari lebal yéen man nañu jaaxal ndax vraiment lépp ñu nga lebal lebal de ku ëllëg ku ñëw da nga am problème pour lekk monsieur le ministre fi may ñëw nag mooy ku tudd économie tudd réew ca ay chiffres rek ngeen ñuy jox waaye ku dugg ci biir réew mi dana xam ne réew askan bi di dund ay jafe ndax tey jii ku feebar pour nga faj jafe wala ci hôpital yi fekk nit ñi tëdd am jafe-jafe pour jënd ordonnance wala am jafe-jafe pour faj boo demee ci hôpital yi da ngay daje ci nit ñuy yalwaan naan la jëlal ma sama ordonnance kon loolu jafe-jafe la tey jii boo u g g e e e ci dëkk bi da ngay gis kër yoo xam ne suñu añee li ñu yor yàq am na fii ci Sénégal sonn lool rawatina bi Dakar nga gis fi ay nit yoo xamante ne dañuy dëkk ci ay kër dem ba y o r a t ñ u la ñu fay ñu leen di g é n n jox ay jafe am ñoo xamante ne nii dañuy nekk ci seen i biir kër amul ndaw ñi soxla xëy ngeen leen di dig ay procès di leen ay xëyu ndaw ñi muy ay wax yu kese ay slogan ndax ndaw ñoo xamante ne lu toll ci plus de deux cent mille la ñuy soxla par at nga leen di dig soixante cinq mille te soixante cinq mille ba ñu ca jot cinquante sax danañ ca ndax dig la rek monsieur le ministre jàpp naa président Abdoulaye Wade moom ci dugub la ko waroon def la ko waroon def la mooy tàggat na si ay président wala ñu ay nit ba ñu ñëw tey Sénégal xam leen tey ba tey yéen yéen a taxaw yéen dalal si kon day daal